set mm-hmm. Pape Cheikh bu dee chasse la mm-hmm. mun nga taxaw ni mm-hmm. raxas nii ñetti yoon raxas bii ñetti yoon léegi nag lu tax parce que loxo yi bu fekkee am na parfum am na ñuy ni seen loxo soo tëbee dugal ko ci ndox mi day soppi ndox mi ah. moo tax ñu ne la raxasal kii ñetti yoon raxas bii ñetti yoon léegi li ci xeeñoon dañ bu dee paan la nga dugal sa loxo bu dee chasse nag nga commencé fii di nga raxas si bii ñett. Mhm. raxas bii ñett commencé fii. d'accord di raxas kanam ak ginnaaw. yëpp wàcc di wàcc ba fii. Ah. gis nga fii Pape Cheikh. Mhm. fii. Mhm. man Kira laay xoolal fii mooy biti oom. biti oom fii ba yi nga boola doon def nii. ndox mi mën naa romb. ci fii du tooy. d'accord tax ñu bëgg nga raxas fii. waaw lii la ñuy tuddee diggante. ñaari pooj bi ak awra bi foofu dugal parce que dafa ruqe yi nga diine dafa day topp nit jàpp na ma pare am fu tooyul te yëgu ko dëgg la nit sangu na ma pare am fu tooyul te yëgu ñi nga foofu nga yëgul day yàq sangu mi sangu moom bu yàqu julli gi day yàqu moo tax bu jigéen bu dee da nga meesu nag dindil su dee pirig dindil benn bu ci ne du mën a wér dindil teg fële. Mm-hmm. mais digg diggu ginnaaw nag dafa jafee raxas oustaz. ci ci sangu set dinaa ci ah. soo raxasee fii. Mm-hmm. kanam gi naaw mm-hmm. boo ñëwee ba ci awra yi fii. fii ngay yéenee faratay sangu. Ah. oustaz saabu bi saabu bi ndax daf ci important daf ci obligatoire. saabu du baax itam. saabu saabu baaxul ci sangu set. waaw ah, day fekk nga sangu ba pare. boo ñëwee ba ci awra bi. fii nga lu tax Pape Cheikh ñëwee la commencé fii parce que soo commencé woon njàpp ñëw fii boo laale sa awra njàpp toj. ne dafa organisé wu dafa civilisé. parce que parce que man bëri naa ci ay morom. waaw ah. euh, Pape Ablaye xaw ma yow nan ngay sangoo set nga baal ma mais man balaa may sangu ci laay yéene. boo boo jëwee nag ba ci aw bi. ci nga war a yéene foofu nga ah. xam nga raxas bi fii. Mhm. fii. Mhm. raxas fii <laughs> diggante bi set na. d'accord des na nga jàpp. Ah. boo daan jàpp looy raxas ñaati yoon. Euh, ñetti yoon ñetti waaw. gi yoon nag benn benn bennal nga koy def. bu la neexee bu répété waa raxas bi bu la neexee defaatal nii hmm. raxas bi galax ndeku benn yoon sarax sëlmu hmm. raxas bi benn benn massa bopp bi hmm. massa noppi tànk boo koy raxas non du ñetti yoon benn yoon yow baaraam bii ngay commencé d'accord bu ndaw bi booy jàpp nii ngay def lii la ñuy tuddee loj ni ngay reyee gilem noonu ngay lojee baaraam yi diggante yi parce que fii boo ko bàyyee mën naa bañ a tooy kon defal nii xajj baaraam yi mhm. nii topp nag suuf mhm. ñëw ba fii nga yem fi voilà oustaz droite bi mhm. bu dee gauche bi fii ngay commencé ah, bu mag bi léegi def nii diggante yi tooy nga ba fii léegi njàpp li mat nooy def tooyal sa loxo nii ba mu tooy wàcce ndox bi ci ndong gi xëcc ndong mooy cuukil mooy ba fii waaw nga xëcc ba fii lu tax boo dee gént di sëy wala ngay séq ak sa jabar karawu doomu aadama yëpp am turu turu yëpp ay ubbeeku moo tax boo paree ñuy la defal nii massa pour fatt turu yooyu sinon boo ko deful boo tebee itam sotti ndox mi mën na la jural zukkaam mooy soj bu dul wér sot bu dul wér. mas naa ko wax benn xale ne ma xanaa moo tax sa soñ bu dul wér. ma ne ko <laughs> soo defee nii benn yoon léegi defal nii Pape Cheikh dëkkal ci sas ah nga bomb ko. benn mooy dax su rësi. moo tax boo solee péri baa nga jokk du baax. baaxul. nga defaat nii sotti ci defaat nii ñaata yoonu nga ko. ñett ñett ñett. defal nii. ah man bii duma koy def de oustaz d'habitude. voilà roofal fii parce que biir paxu nopp bi fii ci sangu bi bokk. Mm. kon roofal fii génne ko dugg ci kubéer noonu am na ñoo seen nopp daa kotom. il faut ñu lijjanti ko. Mm-hmm. dugal leen fii. c'est vrai def nii kubéer gi. raxas sa ngaam ba fii. d'accord nga arrêté. jëlal gauche bi. def même chose. def ko kaay. macha allah raxas sa loos nga fexe diggante fii ak fii yegg xam nga tax. Uh-huh. dañoo sopp kaw yi njëkk yegg suuf gi. mais boo yeggali woon doo tax mu yàqu waaye yemale ko fii. Uh-huh. bii ñëw yem fii. léegi nga delsi nag ci gauche droite bi uh-huh. wàcc ba ci suuf hmm. ñëw ci gauche bi wàcc ba ci suuf léegi nag laaj nga ma am na ñu seen loxo jotu seen gannaaw kan moo fi yor kool Euh, abal leen ñu benn waa indi boobu waa merci beaucoup waaw merci voilà am nga col bii mhm. serviette man na ko mhm. morceau am na ko mais bu dee serviette mhm. bu tilim comme bi Abdourahmane yor buy jug ndox muy soppee <laughs> bul jël serviette bu tilim parce que boo ko dugalee ci ndox mi da koy change d'accord léegi tooy bu dee sas bi def ko ci nii ba mu tooy doo soxla njàmpe. déedéet boo defee njàmpe day soppi ndox mi. d'accord waaw nga raatale. Mhm. mu wàcc. su fekkee ne Pape Cheikh. amoo morso sa jabarang fi. parce mhm. que soxna ñëw. raxasal ronu sens bi. Mhm. boo ca bànnee ko njàppale koñ la. <laughs> boo ciy bànneex jàppale tooñ moo tax fexeel ko concentré wu rek mais buy ragg nga yëg de soo paree demal jàppiwaat mais bu fekkee nag ba tey boo amee jaam jaam amatul yow indi boobu njàngale nga lay tardé sa soxna mën na la ko ragal mhm. sa serviette mën na ko ragal eh, mais est-ce que mën nga woo sa jànk mu defaral la ko non du sa jabar ah. lew la <laughs> d'accord xam nga bu doon ku la lew la sa jabar euh. mën nga ko def macha allah ah. euh. donc mën nañ la ko raggal mën nga ko ragg kii. nii ma la woon sànq. Mhm. tooyal ba mu tooy nga def nii. ale gis nga raatale ba lépp dañ. nii la ñuy sang am nañu naan la euh, Pape mhm. dangay dugg ci ndox rek tooylu sangu ak tooylu du benn. déedéet. dañ ne sangu farata waxuñ tooylu farata. Mhm. lan mooy tooylu. mooy ne gars yi naan la boo duggee ci géej gi rek génn sa am nga sang déedéet. <laughs> ah kon bu duggee géej génn amoo. sobe sobe dañul. muy dañ ne mais sangu nekku fa. Ah. justement waxuñ la tooylu waxuñu tooylu farata sangu farata lañu wax te est-ce que xam nga ne bomb farata la bomb farata la ragg bu baax farata la mais boo tooyloo bàyyi nga ragg am na ñu naan la da ngay dugg ci dex gi rek génn wala dugg ci géej gi am nga sangu yéeneen rek mais yooyu dafa yomb Pape buñ la la joxoon ñetti poste fii buuba ne la am na poste un million. am na bu deux millions. am na bu trois millions ci liggéey bi booy jël. bu trois millions trois millions. parce que moo gën a wér ci yow. diine jëlal ba gën a wér. d'accord. kenn du jël la gën a faible. julli def loolu. déedéet jëlal ba gën a wér jël ba gën a sell gën bëgg jël ba gën a wóor. ji nga lépp loo gis Pape ñu naan baax na baaxul teg ko fële dem ca ba ñëpp ne baax na. xam nga bii ma la moom kenn weerante ko. waaye dugg ci ndox génn coowa nga ca. wallaay coowa Iran ñi nga xamante ni kon dañuy taxaw ubbi chasse bi yéene euh, sangu euh, farata bàyyi ndox bi wàcc seen yaram. est-ce que ñooñu sangu nañu <laughs> Ablaye dama voilà dañ ma ci yóbbanteel laaj <laughs> ndax yéene bi dañ koy biralam déet ci sangu farata bi ni muy wax ak boo ko fàttee. parce que ak yéene bi lan la. oui parce que boo dee julli di nga ne allahumma inni nawaytu ilal kabi xastil faridati wudoohi beek yooyu yëpp. mais yow boo nga joxe àllarba de. ak ak ko ci duggee. yéene. Uh-huh. bépp xeetu jaamu yàlla. Uh-huh. yéene farata ci. bépp uh-huh. xeetu jaamu. bu dee njàpp bu xam nga foo yéene. raxasal loxo bi ñetti yoon. bul yéenee gum de bii ñetti yoon galax ñetti yoon sarax ñetti yoon booy mu nag ci nga yéene lu tax ah bon parce que yéene farata la deux si wa àttanul camion te lii sunna la galax ndiku sunna sarax ndiku sunna àttanul yéene donc booy sëlmu mu ngay mu a yéene kon booy sëlmu sëlmu farata la yéene farata la farata àttan farata mais ci sunna nga yéenee fa teg nga yow ci kaw deux siwo boo yéene jàpp looy wax boo yéene jàpp ci sa xol nga koy def ah, dangay ngay jublu sa xol ne fas naa yéene jàpp jaamoo ko yàlla xol fii rek nga koy jublu ci xol bi mm-hmm. foofu ngay jublu bu dee sangu bi noonu su dee koor gi da ngay yéene ci sa xol ne fas naa yéene wooru weeru koor yépp su yàlla dogalee nga feebar ci diggante bi boo boo wéree nga yéene waat yéene bu njëkk ba yàqul Muhammad nee na a a'maalu binniyaat wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa. te yéene bi doo ko wax ca kaw doo ko biral. jaadu ko boo ko fàttee xol bi rek. boo ko fàttee soo ko bàyyee bàyyi nga farata. soo demee ba sangu ba pare sangu ma yàqu la. ah bul déglu ne ki naan la ba nga jëlee sa tale ba yéene ba dugg fu man ngaa jël sa dem wanag tuur wanag te yeggu ko ca wanag wa. oustaz oustaz mën naa saw te yeggul wanag. déedéet mënul nekk damay damay damay jeexal.